والبس كوك أمر فعل أمر لا من لبس من جوجي سي لبس صلنا يلبس البس صل لبسا أكثر وهو لابس وملبوس لابس ما يجي صل ملبوس ما يلين صل لبس الثوب ما اتسى به كموم كن فعل له أما لبس بنا خمنا فعل لا dañ naan labasa alayhi al amru mooy mbir mi lënt na ci moom yalbisu dana lënt kooku faala yafilu la labasa yalbisu faala yafilu ilbis lëntal lubusan ak lënt fa huwa laabisun wa malbuusun kon labisa yalbasu mooy sol na amma labasa yalbisu kooku moom lënt na lay firi labasa nag laazim la labasa alayhi al amru alayhi lay jàggate ala labisa nag mutaaddi la labisa sawba mafoon bii lay am direct labi labas labasa mooy ixtarata jaxasoona washtabaha mu niroog bi xayrihi ci lu dul moom mooy lënt na ko wal bas li kulli zamanin laam yaakaar naa romb guñ ko woon ci yañ doon jàng لام لا وخنا دي الملك داي تك مومل نحو المال لزيد وشبه الملك اك لو نيرو مومل نحوكم القفل قمبو جي للباب ني لا بونتو بي خمغا بونتو مومت آه، دا فا نيرو لو موم باس بونتو ام قلب مانا موم واي دا فا نيرو موم موم باسك موم لا نجاك ديال قمبو وكا قولي نيك واخ يالله تعالى كون والله يالله جعل دفنا لكم ngir yéen min anfusikum jugee seen bopp azwaajan ay soxna dafa mel ni yéen moom soxna yi kooku shibul milk la waaye moomoo ko kon laam lil milki wa shibil milki moomeel ak lu niru moomeel dégg nga wali tamliki ak moom loo laam danay firi moom loo ndax wa wahabtu may naa li zaydin ñeel zaydin maaran alal li zaydin googu mooy da nga ko koo moom loo da nga koo moom loo alal jooju kon laam dana firi moom ak lu niru moom mooy nga askane nit loo xam ne dëgg-dëgg moomu ko waaye dafa niru ne moo ko moom ndax am na dura soppandiku ci danay firi tamit moom loo dara ni ki waxabtu may naa li maalan alal li zeydin maanaam alal ji dañ koo moom loo zeyd wala taadiyat dana jàggat si ni ki maa adara ba ak mën a dóor zeydun zeydu li amrin ñeel amr xam nga dara ba moom laazim la waaye nag léeg-léegi ñu dugal ci laam mu yàggati nekk mafoon bi maa adraba zaydun li amrin ak zaydu moo mën a dóor amr laam gi moo tax dóor ak zaydu gi tàbbi ci amr maanaam mu jàggati wali taalil dana nekk sabab taalil mooy sabab rek ka qawli shaairi wa inni la taaruni li zikraka xizzatun ka man tafada al usfuru balla lahu al qatru balla lahu la wa inni naka man la taaruni dana ma gaar xizzatun mbégte li zikraka ngir fàttaliku la maanaam sababu fàttaliku la fàttaliku gi ma lay fàttaliku moo tax mbégte bi dal ma kaman tafada comme nu muy yëngatee almasfuuru nu muy fëggoo almasfuuru picc moo xam ne balla lahu tooyal na ko alqatru taw bi picc bu ko taw bi tooyee mu yëngal laaf yi ma ni noonu laa yëngatoo su ma lay fàttaliku la taxaru nii dana ma gaar lu may gaar xisatun ak yëngatu lu tax li zikraka ci sababu fàttaliku la laam googu li temps lii la day wax day wax li tax waa ji di euh, yëngatu di kontaan lu tax yëngatu ki di ko gaar la euh, dégg nga loolu nag ba ñuy jàng ma foog na mu ne aj lii nañ ko ne euh, fàttaliku gi ci nit ki la jógee la nga xam ne mooy faayil bi nag mooy yëngatu gi looloo waral nasa boo ko def ko ma foog na mu ne aj lii dana dikk moom la am ka inda yore maana inda di tekki barab ka xawli naa katabtu bind naa ko li xamsin ay inda xamsin inda googu nag jamono lay fii ci juróomi fan yoo xam ne xalaw na wéy nañ ñu shahri kaza ci weer nangam léeg-léeg gis ku bind ba pare bind naa ko ci jamono bi nga xam ne juróomi fan moo wéy ci weer nangam wala juróom benn fan wala yooyu laam googu maanaam inda xamsin la firi وفي ليلة مويرة معنا والمعنى في كقوله تعالى وندعو الموازين القسط درنتك وندعو درنتك الموازين بيرسي القسط يمان ليوم القيامة أي في يوم القيامة كي بس بنت ليالة بلازين خلني بلاسو ماندولا بو بيرسي في جامع أي في يوم القيامة وتأتي بكم من لام ليلة مويرة معنا من كقول شاعر لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل lanaa ñi al nañu alfadlu ngëneel fi dunia ci àdduna wa an fukka te sa bakkan raaxi mun aji sib la ko maanaam ñoo leen gën ci àdduna même bu la naqaree wa nax nu ñun lakum wa nax nu ñun afdalu ñoo gën lakum ci yéen yawmal qiyaamati ay afdalu minkum lakum googu maanaam minkum la wa nax nu minkum parce que afdalu xam nga min lay ànd fulaan afdalu min fulaan ngay wax ñoo leen gën ci àdduna téemal xayamatu ñoo leen yi gën xam nga bàkku moom ku mbir yi nekk sa loxo rek moo ko war a def waaye loo xam ne nii nekkul sa loxo boo ci bàkku war ngaa xoolal sa bopp kuy bàkku daal boo gisee war ngaa tiit ndax ku xamul sa mustaqbal waroo bàkku nekkul sa loxo ci loxo yàlla la nekk te moom lu ko neex lay def fa'aalun limaa yuriid wax dëgg yàlla foofu mm, mm, borom xel du fa bàkkoo dégg لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن منكم موردون لكم جوغو مانا من لغيره ولمانا بعض لهم ويرى مانا بارك قولي تعالى أقم الصلاة أقم لنا استخل الصلاة جري للدروك الشمس أي بعد الدروك الشمس جناو جنگ جنتبا أي بعد الدروك الشمس لام جوغو مانا بعض لغيره ولمانا عن لهم ويرى مانا عن كقولي تعالى نيك وخيار جنان وقال وحنا الذين قاينا خمنا كفروا ودنا للذين ñeel ñi nga xam ne ay an ñi nga xam ne amunu maanaam lillazina foofu maanaam anil lazina amunu hmm, kon laam léeg-léeg mu yore maanaam an qaala anhu la ñuy wax jëlee ci moom wala anhu ci moom wala maanaam maa léeg-léegi laam yore maanaam maa ka qawlihi ni ki waxi waykat bu naan falamma tafaraqna ka anni wa malikan li tuuli ijtimaain lam nabit laylatan maan ay maa tuuli ijtimaain ànd ak dajeeku yàgg falamma tafaraqna bañ tàqalikoo ka anni dafa mel ni man wa malikan ak malik li tuuli ijtimaain gannaaw dajaloo gu yàgg lam nabit fanaanu laylatan ab guddi maan mboolem seen dafa mel ni mos ñoo fanaan benn guddi ay maa tuuli ijtimaain dajeeñ lu yàgg de waaye bañ tàqali ko daf mel ni mos ñoo fanaan benn guddi laam gu foofu maanaam maa la yore ànd ak dajee gu yàgg giñ dajee bañ tàqali ko daf mel ni mos ñoo nekk sax benn guddi wa taati dana dikk lil xasam ñeel ngëñ dégg nga man dama dama def ko xawli naa billaahi de après danaa ko xoolaat bindaat ko mais billaay bi baala baawu xasam la boobu warul nekk misaal misaalum xasam dégg nga wali tasir dana tekki mu mujjal dara ka qawlihi taala ni ko wax yàlla jum nan faltaqatoo mu for ko aalu firawna ñooñ firawna li yakuuna ngir mu mujj nekk lahum ñeen leen addu di noonu xam nga firawna ba koy for pour mu nekk noonam taxut waaye laam gi dafay ñëw di war ne waa ji dafay mujj rek nekk noonam ay li yasiira ngir mu mujj la um ñee leen wax du woon di noonu laam gi ñëw di li wane li tax firawna forko ko eh, laam gi dafay ñëw di wane ne fa muy mujj ak moom rek mooy nekk noonam <laughs> mais xam nga firawna foru koon kat ngir mu nekk noonam wali tabliix yi laam dana ñëw di firi jottali ka ballaxtu jottali naa li zaydin ñeel zayd maalan Hmm, kooku tamit moo moomel sorewuñ dara moom moo moom loo ko sorewuñ wala istiala danay firi kawe ka xawli taala bu ngeen ñaawalee falaha fa alayha maanaam war na ko maanaam war na bakkan ba rek bu ngeen ñaawalee yëpp ñaawal gi dafay dal ci kaw bakkan gi rek googu maanaam fa alayha wala tab yii ni firi leeral ka xawli taala fasoqan ab sori bi yërmande yàlla ñeel na kan mu ne li asaabi sair ñeel na waa safara laam ngi dafay leeral ñoom ñooy torox noonu ñoom ñooy sori yërmande yàlla wala na ajab yi dana tekki kimtaan ka xawli naa ni gis ñu wax fa yàlla ka min rajulin dégg nga lakka googu dafa ñëw pour wane ne dafa yéemu ci yow fa yàlla ka min rajulin mooy yéem naa la wa tuzaadu danañ ko dolli moom laam li tawkiidi ngir feddali ka qawlillah ka qawlihi ni ki wax waykat bu mu naan allahu murgimun li ahlil maasiyati allahu yàlla murgimun aji arag la mun ngaa wax ahlal maasiyati rek ñooñ moo yàlla mais mu yokk ci laam ngir ngir lan ngir wane ne ngir feddali rek alkande gi gi mënoon na fee kon su ko defee laam dana yore yooyu xam nga tudd na ne laam dina ñëw pour feddali mu wan la nag laamu tawkiit ñaata anam lay ñëwee ci langue arabe mu ne wa laamu tawkiit laam gi nga xam ne pour feddali moo ko tax a jóg xamsatu adrubin juróomi xeet la laamu tawkiit juróomi façon la mën nga ko jàpp am na lu ñu tee laamul ibtidaa mooy laam gi tugg dugg ci commencement wax ka wax ja loolu lam cey jëriñ mooy feddali wax ja gën koo dëgëral ndax wala zaydun la zaydun la afdalu min amri moom nag da koy fata zayd moo gën amr kon laam googu dafa ñëw pour feddali ngëneelu zaydu ci amr mais laamul ibtidaa lañ koy tuddee kon laamul ibtidaa boo ko gisee rek xamal ne laamu tawkiid wa daaxilatu ak laam ngay dugg fii xabari inna ci xabaru inna assaqila bu mm, diis ga mooy buñ def inna aw mu xafafa wala buñ oyofal wax in ka xawli taala inna rabbaka naka sa borom la bil mirsaadi <laughs> xam nga inna rabbaka mooy ismu inna gi bil mirsaadi mooy xa mooy jaara ma juróom mooy xabar ga ñu dugal ci laam goo xam ne moom it la wax nañ ne nag xabar bu amee laam rek doo mën a waxati an na inna rek ngay wax inna googu saqila la maanaam inna gi dañ koo jàng mu leer nañ wax waxuñ in wanax wa xawli ak wax yàlla taala kana wa in kaanat nekk na la di la nekk na la kabiratan di aji rëy xam nga in gi in na la woon ñu oyofal ko wax ko in kaana gi nag mm, moom fi'lu maadi naaqis la ismum bi di na kabiratan di xabaram gi laam gi nag eh, eh, dafa dugg ci xabaru kaana ga dégg nga wa hmm? in kaanat la kabiratan laam googu dugg ci xabar ga dafa ñëw pour tawkiid in bi mu la min asaqila inna la hoon ñu oyofal ko waaw inna buñ ko oyofalee nag li ëpp dañ koy neenal mooy dootu amati lu muy liggéey waaw wala ci ak nga xam ne yakun dana nekk jawaaban di tontu li law kon laam gi nga xam ne dafay taw dugg ci mubtada laamu tawkiid la mooy laamul ibtida laam guy dugg ci xabaru inna buñ ko liggéey loo wala buñ ko oyofalee neenal ko loolu mm, dégg nga waaye nag bii ne la kabiratan xabul kaamera dégg nga laam googu ba léegi laamu mm, ibtit étampe tookil la waaw wala ti ak xam ne yekun da nekk jawaaban di tontu li law laam gi xam ne dafay tontu law xam nga law moom maanaa charte la waaye du jësam ka xawli taala law tazayyalu bu fekkoon ne jullit ñi beru nañ la azab naa kon danañ bugal law nag xarfu imtinaayin imtinaayin la maanaam moom jawaab du mën a nekk parce que charte ba mënul nekk waaw law tasayuloo bu jullit ñi ber woon màkk yàlla nga koy wax ci sulul Xudaybiya mu ne li tee ma sant leen ngeen xeex ak xeeféer yi ñu mbugal leen mooy dafa am seen biir te bëgguma ngeen loraale jullit ñi gis nga yàlla bëggul loo xam ne nii ku ci yoonam nekkul daf cee lorwaale euh, xeeféer yi màkk yi aaya na yonent bi dugg kaaba ga xeex jot na waaye nag jullit yaa ngi seen biir bu xeex b jugee mën nañu leen a faagaagalee te duñ leen xàmmee yàlla ne kon aay naa ko waaye nag law tasayalu bu jullit ñi bere woon kuroon la azabna alladina kafaru minhum azaban aliman kuroon ñu mbugal ñu weddi mbugal mu métti mais jullit ñi nekk seen biir moo tax ñu aaye leen ngeen xeex ak ñoom hmm? kon ndeke jullit ñi beru amut mbugal gu amut law moom lu lay tekk ñaar yëppay dàqu charte bi mooy ñu beru jawaab bi moo ñu mbugal charte bi dàqu na jawaab ba dàqu gis nga nag jawaabu law ga mooy la azabna tontu ba laam googu pour tawkiid la pour feddali mbugal mi hmm? dégg nga wa laamu jawaabil xasam ak laam gi nga xam ne ni jawaabul xasam la dafay tontu ngëñ te qawli taala wa tallaahi maa ngi gën ci yàlla la akiidanna dana ma feddali asnaamakum seen i xërëm la akiidanna danaa fexeel asnaamakum seen xërëm yi loolu yonent Ibrahima moo ko waxoon Eh, fekk nit ñu di jaamu xërëm mu bañ ko lool mu ne dana fexeel xërëm yi fexeel na ko rey rey na leen laam googu laamu tawkiid la moom it mooy bu dugg ci ci tontu ngëñ gi te laay maa ngi gën ci yàlla looy gën ak kii la kon laam yii ñooy laamu tawkiid foo ko fekk rek laam yii nii laamu tawkiid laamu ibtidaa yi ak laam gi dugg ci gannaaw in moo xam bu diis bi la wala bu ñu oyofal laam bi nga xam ne dafay tontu law. Euh, ak ak ak laam gi nga xam ne dafay tontu ngëñ in gi nag mën naa nekk ko def juróom waaw man laamu saakina waaye laam gu sukkoon kooku fa darbaani ñaari xaaj laamu taarif laam goo xam ne dafay tekk maarifa mu dugg fa def ko al comme rajulu nga ne ar rajulu kooku saakina tun ngay wax day sukkoon abadan ba faw ndax wa jaa dikk na rajulu ak laamu amr hmm? laamul amr nag moom laam guy sukkoon la waaye isa dafay kasara moom ñaareel waaye nag isa daxala bu duggee alaa ci moom xarfu atfin xarfu atf jaasa dagan na fiyaa ci moom al kasru kasar wa taskin ak sukkoon laam gi ñuy sukkoon ñaari xaaj laam goo xam ne dafa dugg ci nakira pour maarifal ko dañ koy sukkoon ak laamu amru bu ci xarfu atf duggee mën nga koo kasara mën nga koo sukkoon kon foofu sukkoon nga mm, dafa dagan waaye warul ndax wa qawli taala wal yaxkum ahlul injil xam nga waaw xarfu atf la laam gi laamu tawkil la mën ngaa wal yaxkum bu du woon alquran nga wal yaxkum wal yaxkum ahlul injil bi ma anzalallahu fi fal nazhab mun ko wax nga wax fali nazhab kon laamul amru bu ci xarfa atf duggee dafay dagan nga kasra ko wala nga sukkoon ko te laamu taarif nag moom dañ koy sukkoon wa taati dalika moom laam ba tamit li isharati pour junju te qawlihi him ni gi seen wax zalika laam googu laamul ishara la walil juxuud dana nekk laam ak weddi te qawlihim na maa kaana al aminu li yaxuuna kooku dañuy nasab mudaare bi ci an guñ na bëgg naam wala istixqaaq daa nekk laam ak xelloo ndax wa qawli taala ni ko wax yàlla alhamdu cant lillaahi ñeen na yàlla dégg nga hmm? waqad tuwaafiqu dana dëppoog ilaa ka qawli taala bi anna rabbaka ne sa borom awxaa lahaa wax yu na ko ay awxaa ilayha dégg nga kon laam gu foofu maanaa ilaa la yore su ko defee laam maani yooyu maani yooyu la laam yore dégg nga mu jeexal ci maanaa laam yi duggaat nag ci dégg nga xasida bi walbas li kulli zamanin jeexal nañ laam mu ne amma kullu wa zaman faqad marra romb nañ inda qawli ci waxu waykat bi dina wasbir ala kulli ma yati zamanu bihi wasbir ala kulli ma yati zamanu bihi ba muy jàngale bayti boobu leerloon nañ maanaa kullu ak zaman la ci aju dégg nga mu ne eh, yu laa imu kooku mu daarion laa ama la mu daarion la maa di yu mooy laa ama yu laa imu laa im mu laa amatan fa huwa mu laa wa mu laa amun nga laama yulaa'imu laa'imu laa'amatan fa huwa mulaa'imun wa mulaa'imun laa'amahul amru buñ ko waxee mooy waafaqahu dëppoo naag moom laa'amahu al amru mbir moom mën a doon rek mooy waafaqahu dëppoo naag moom laa'im mooy lu dëppoo laa'ama bayna al fariqayni mooy jamaa dajale na wa aslaha mu xéewanal baynuma seen diggante mooy dajale na maanaam defar na diggante ñaari kuréel laa'amahu laa'ama shay'a mooy aslahahu defar na ko la ama chey a mbir mu doon rek nga ne la amahu mooy aslahahu defar na ko wa yuqaalu léeg-léeg ñu wax ci mujarad ba la ama moog la ama ñu bokk maanaam la ama yal amu il am la man fa huwa moom laa imun wa malumun la amal jurha mooy dammadahu bandaas na ko wa shiddahu mu takk ko la ama sawban mumazaqan la ama Euh, ñaw na sawban yére mu mazaqan mooy raqaawu daax na ko wa aslahu mu defal ko daax mooy nga jel beneen tiis yi def ko ca daal di ko ñëw hmm? boo xoolee ba léegi maanaam defar ak dëppoo rek lay lay tekki la ama baynal mutanazi'ayn tamit dafay firi aslaha defar na baynuma seen diggante la ama defar na baynal mutanazi'ayn diggante ñaar ñi xëccoo mooy aslaha defar na baynuma seen diggante foofu tamit dañ fay gis lu mu gi firi soxor kooku moom mu ngi jugee ci la uma faula la la uma rajulu yal umu dana soxor ul um soxoral lu man ak soxor wala amatan ak soxor foofu wala imun aji soxor la dañoo foofu wala imun moo ngi gréega soxor la wal mooy ñu soxor walu mu soxor moom jigéen ji la imatul ngay wax wal jamu nga ne li amun ñu soxol moy danu a suufe na wa nag mu nekk xabisan di ku bon loolu mooy la uma mooy ku suufee rek ku ku ñàkk solo amma li mu mu lay wax ne wa li mu a sulxu mooy xewanoo wala ittifaaqu ak dëppoo awil mislu wala kem wa shibu ak ku niroog yow dañu wax ne wa yuqaal dañu wax ne furaanin li mu furaanin diw dafa niroog diw waaw li mu day firi niroo hoo li mu ka mooy dafa niroog yow li mu tamit danay firi dëppoo yu gën ci la am rek wal jamu al mooy ñun ay mbir yu niroo al aam wa yuqaal dinañ wax yaa lamaanu wala yaa lumaanu mooy yow mu soxor mi nga xam ni soxor gi naturel la ci yow yàlla ko bind ay yaa la imu yow mu tabaan ci bindare ñaari baat yooyu nag la wax ne wala yustaamalaani duñ leen jëfandikoo illa fi nidaa yi lu mooy ci xoote lamaan ak lumaan arab bu leen waxee day ànd ak yaa yaa lamaanu yaa lumaanu rek ngay dégg mais doo dégg lu dul loolu ñaari baat yooyu ci woote rek lañ leen a jëfandikoo li ñuy firi mooy koo xam ni naturellement yàlla daf ko bindee ak suufee ak ak bon jikko ak yu demee noonu soxor mooy ko bon jikko rek ku suufee rek lañ ci sam euh, ci al mu ngi jugee ci yasura wala boog masdaru yasura la yomb na al amru mbir mi yey suru yomb xam nga uy moo waroon nekk amru waaye u la ñuy wax ndax gannaaw dàmm waaw mën a ñëw yusran ak yombu wa yasaaratan ak yombu fa huwa dañ naan yaasirun ak yombu wala ñu ne fa huwa yasirun ak yomb la wala fa huwa yusrun loolu yëpp huwa la waaw yasura yaysuru usur yusran wa yasaaratan yusran yasaaratan masdar la waaye fa huwa dañ naan yaasirun wa yasirun wa yusrun mooy lu yomb yusrun mooy lu yomb addiinu yusrun ay yaasirun والدين يسير ما يسهل يومنا يسر فعل وأمنا يمت فعل يسير ييسر دنا يوم إيسر يسرا أك يوم إيسر يوم فهو ياسر أك يسير أك يسير فهو يسير مجيجيس يسير كون فرح يسير الشخص ما اتساع شهود ياتنا يسير العمل ما يسهل يومنا kon amna na yasura ak yasira yooyu yëpp maanaam benn la rek moy ko ku nek ci yomb yomb rek man amna yasara tamit di faala yasara yaysiru isir yasran isir mu amru bi yasara yaysiru faala yafiru kom amna faamu la yafulu yasura yaysuru amna na faila yafalu yasira yaysaru amna faala yafilu yasara yaysiru isir yasran wa yasaran fa huwa yasirun wal mafmul ismaful mooy maysuur luñ yombal yasara nag bi nga xam ne faala la moom yomb na lay firi yasara al amru mooy saxula yomb na wa yasara lahu fi l amri yasara yombal na lahu ñee ko fi l amri ci mbir mi ay jaalu def na mbir mi sahlan muy lu yomb may suran di lu jàppati al usru kooku masdaru asura la bi firi jafe na yaasuru kooku faawu la yafulu comme yasura yasuru unsur jafeel usran ak jafe wala usuran ak jafe wala asaratan ak jafe fa huwa asirun wa asirun ak jafe mooy istadda tat na wa sha'ubatan jafe na ma am na faala yaf'ulu tamit comme mu daarawam yaf'ulu rek la mën a doon eh, ci ñaar yi am na faala tamit asara faala gi ak faala gi seen mu daara yaf'ulu la asara jafe na yaasuru wala yaasiru ok mu daara boobu am na yaasuru yaf'ulu wala yaasiru yaf'ulu amru bi yaasuru nag mooy unsur amru bi yaasiru insir asran ak jafe wala asaran xasaran ak jafe waaw xasara zamaanu mooy istadda jafe na xasara alayhi mooy xaalafoo wuti naag moom xasarahu mooy jaahu dikkal na ko ne saare yi ci càmmooyam xasara xasara almadina mooy talaba sàkku na minu ci moom xadaa day ni fay bor ala diqin ci xat-xat mooy xasara almadina mooy kilab xasara alayhi maa fi batnihi mooy seere na ay lam yaxruj génnut kon am na ansura yansuru am na asara mën naa nekk yansuru comme ansura wala yansiru faala gi mën naa am yafunu wala yafunu am na ay maana asara alayhi mën naa firi wuute nag moom asarahu mooy dikkee na ko ci càmmooyam asaral madina mooy sàkku na mu fay ko fekk euh, maanaam tatal na daal asara alayhi maa fi badni mooy li nekk si biiram bi jafe na maanaam génn mun génn am na faila asira yansaru yansar asaran fa huwa asirun wa asaru mooy sangu ko jëfe na rek dañuy wax asiral waladu kooku mooy xale bi góosi la maanaam càmmooy lay lay liggéeye foofu wa asaru hiya asra wal jamu usrun mooy laa yaamalu du liggéey illa bi yadihi l yusra lu ma si doxo càmmooyam wa asira alayhi l amru ixtalata mooy jaxasoo na mbir mi jëfe na ci moom rek maanaam jaxasoo na mooy jëfe na rek soo defee baat boobu loolu mooy ay maani yi nga xam ni moom la yore amma juud masdaru jaada la tabe na ya juudu dana tabe jut tabeel juudan ak jawdan ak jawdatan juudatan yooyu yëpp masdar la fa huwa moom jawaadun aji tabe jawaadun nag mooy kenn ku tabe jamo bi am na ay ay jamo fa huwa jawaadun wal jamo mën naa nekk juudun ay nit ñu tabe ajwaadun ay nit ñu tabe juudatun xam nga juudatun mën na nekk masdar mën naa nekk tamit jëmu jawaat ay nit ñu tabe juudaa u hum juudaa u mooy ñu tabe ajaawidu ñu tabe jiyaadun ñu tabe ajiyaadun ñu tabe ajaawiidu jawaadun jigéen ju tabe jawaat dañ wax waaw nga jawaat foowa jawaadun góor la waaye jigéen gi tamit mën ngaa wax jawaat benn la jigéen bi juudun mooy ay jigéen ñu tabe juut xam nga mën na nekk mastar mën naa nekk jamoo jigéen ñu tabe dégg woowu aydan dañuy wax ba woowu moom aydan ba tey jaayidun aji tabe la wal jamoo bi jawdun mooy nit ñu tabe woo jaayit jamoo bi jawdun ak jawaidu mooy nit ñu tabe kama yuqaalu comme ni ñuy waxee woo moom jëy yi dun jëy yi dun lu baax la mu jugee ci jaada rek di tuuti tabe na wal jamo bi nekk jiyaadun ak jëyaa idu mooy yu tabe mooy yu baax daal jaadal amalu mooy saara mujj na jëyi dan di aji baax jaada fi qawlihi ci waxam mooy qaala wax na jëyi dan wax ju baax jaada alfarasu fas bi saara mujj na jawaadan jawaat mooy fas bu mën a daw bu baax rek <laughs> waaw ku be yi génn bari bëri waaye fas bu baax it day daw lu baax xam jawaat ma naa firi ku tabee mën naa firi fas bu fas xam ne naaru góor la daal jaada al mataru mooy nazara wàcc na kese lañ ci lañ jëlee jawdu di firi taw bu taw taw bu bëri parce que jawdu jamu jaa jaayit la jaayit mu aji tabe jawdu nag mooy lu ku mbooloo mu tabe taw bi wàcc lu bëri nag mbooloo rek muy joxe kon baatu jaadaangoowu eh, yooyu ñoo jugee ci moom mën naa lu baax mën naa firi lu tabe mën naa firi lu wàcc lu bari daal wa jayyida kooku fayla la waaye moom yaala dañ ko bàyyi ca ràggam ga jayyida yajyadu ijiat jayadan fa huwa ajyadu wa hiya jaydaa'u wal jamu juudun mooy doq gi gudd na jaydatil mar'atu mooy taarat gudd na woonu doqam wa xasuna doq gi rafet na amma buxulu masdar la masdaru baxula faula la baxula yabuxulu ubuxul buxulan gis na ak nay wala buxulan ak nay fa huwa baxilun wal jamoo bi nekk buxalaa u mbooloo mu nay wahiya moom jigéen ji ñu ne baxilatun wal jamo dégg nga baxilaatun mooy jigéen ñu nay dégg nga loolu loolu mën naa nekk foofu baxilun wal jamu buxalaaw way moom baxilatun wal jamu baxilaatun o buxalaaw mooy mooy mooy ñu nay ba tey wa baxila faila la am na baxula fawla am na baxila faila yabxalu dana nay ibxal baxalan wa buxulan moo xam fawla ba wala faila masdar mën naa nekk buxulan buxulan foofu wa baaxilun aji nay la wal jamu buxulun ak baaxiluun دينغ اك بوخالون اك بوخالون يوي موي كيلي ناي باخيل موي كين كو ناي مبولو مو ناي بوخولون كون بوخول مانا نيك مصدر مانا نيك مبولو مو ناي باخيلونا اك بوخالون اك بوخال يوي مبولو مو ناي لي فري وهي باخيلاتن والجمع بي نيك باخيلاتن وبوخالون موي فيلم مبولو مو ناي بوخال يو جيجين وهذا يقول الاسلام الصلاه والتوفيق الى بالله عليه توكلت وسلام